damaa yaakaar ne ñetti mbir ñoo ci ëpp solo mooy wàllu assainissement bi ñu tudd muy ndox yi taa ci bett yi ak ndox mi ñuy jëfandikoo di ci kër yi muy ndoxum naan bi ak wàllu wér-gu-yaram bi courant bi itam ku ne xam na ne bi ñu ko andi lagul taal làmpi pétrole lañ daan def ak i sondeel waaye nag tamal nañ ko nit ñi ba kenn ku ne mënatoo tàggoog moom ñu boole ñu ci jumtukaay yoo xam ne ku am courant te amoo ko day mel ne yàgg ci fitna kon nag loolu it day laaj luñ ci mën a yokk ñu ñu dolli ko ci waaye waa Senelec foofu kilifa yi dégg naa li ñu wax ci wàllu demande yi ci biir kër yi gis nañ ne loolu luñ ci mën a yokk gaawee ko lu baax la ndax am na fi ñoo xam ne def nañu demande lu mat ñaari weera te compteur xaw leen a jafe kon loolu itam lu ngeen ci man a jàppalee. léegi nag li ma xalaat mooy Touba ci boppam population bi fi nekk jumtukaay yi mu war a àndal mu gunge ko jumtukaay yooyu dafa desoon lu bari ndax ku ne xam na ne mbooloo di yokk ay kër di yokk ay dëkk di toxu di ñëw te la leen war a la mu war a àndal mu gunge ko loola genn wàll nga diggut bu ci bëggee boole xewu toll ne màggalu Tuubaa danay wóor ne luñ ca mën a def ak njàmbaar buñ ca man a def bu ñëwee fekkul mu doy waa dëkk bi waxuma laa gan yi ñëw kon boo bëggee boole ñu dëkk ci dëkk bi manqué ne lu bari mbooloo mu toll ne màggalu Tuubaa di ñëw te dëkk ñëwaat ci seen kaw ñii ci yëngu di ñu ci jàppale ñëpp yéene la ñuy jiital ak def nag seen kem kàttan waaye ku ne xam na ne ndegem ñi fi tëdd di fi yeewoo fukki weer ñaar ñoom la seeni mbir bi ñàkk a jag kon gan ñu toll noonu ëpp leen foofu buñ ci dolli ko ku ne xam na ne ku am yéene rek moo cay dox te la muy doxee kenn na rek la man waaye kenn yaakaar ne da nga ci am 100 pour cent loolu mënu nekk li am ba des nag mooy li ma fi junjoon daaw dana ci am tuuti lu ma ci fàttaliwaat li am solo mooy. Euh, nun yàlla bindee nañu xam nañ lu bari nit nag daana xam lu bari te du tax mu man lu bari nun nag yàlla def na xam nañ lu bari man nañ lu bare te dañ daan wax ne yoon wi kilifa yi fi jiitu dañoo waxoon ne yoon wi am na ñeent yoo xam ne mënu koo ñàkk bi ci jëkk mooy boroom xam-xam bi ci topp mooy borom xel mu rafet bi ci topp mooy borom alal bi ci topp mooy borom doole yooyu yépp mi ngi ci biir yoon wi te du ci mas a jóg ñu xam ne nag bu ñu goy goyloo ci kanam kenn nit du tax ñu yërëmati bi ndax ku taxawal jumaay 20 milliards fondation daara 37 milliards koo goy goylu fi kanamam it du tax mu yërëm kon nañu xam ne war nañoo taxaw am position bu ñu taxawee ak mu jote ci ñu jéem a dégager budget boo xam ne murid yi ñoo koy dégager lii nañ ñu ne ci assainissement bi la jëm lii ñu ne ci ndox mi la jëm lii ñu ne ci wér-gi-yaram bi la jëm lii ñu ne ci courant bi la jëm bu boobaa lu ñu état bi dimbalee danañu doy sën waaye nañu xam ne kat am na ci loo xam ne lii la ñu mën a doy loo mooy lu ñu defal rek nañu doy ndax li ñu bëgg dafa mel ni am nañ ko ba noppi bëgg a jàppe suñu bopp ak ndonga daara te ndongo daara nag des tay jaar waaye bu jàllee des koy weesu li am solo nag mooy ñu xam ne lii ñu war a def ci wàllu woowu bu ñu ko taxawee lu baree baree bari dana saafara ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam dañoo defaloon feuille de route boo xam ne fi lañu war a jaar ndax li mu ñu defaloon mooy walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxnini wa yutini mu ne du ma ragal du ma yaakaar ku dul sama borom bi ma bind ndax bu ma ragalee nit dama koy joxe pexe jàpp ne mën na maa lor te mënumaa lor te lool pexe suñu borom la suñu borom am kàttan foofu waaye an nafxu wa durru min arrahmani laysa min al bidaani wa suudaani nee na njariñ ak lor du jóge mukk ci nit ku weex mbaa ko ñuul ci yàlla képp la mën a bawoo waaye du jóge ci keneen moo taxoon nag mu ne fa xultu xasbiya rabbi waqtafaytu bihi wa lastu raadiya xayran